it. Toujours dans votre acte du jour de ce 25 octobre 2024, fii ci VIP People TV foofu la ñuy desandi ci lancement C221 ginnaaw Cheikh Yérim Seck yëkkati na nee premier combat bi nga xamante mouvement bi teg na ko maanaam mooy porte plainte li nga xamante ni daal police nationale ginnaaw bi ñu jàppee nit jël permis attesté ko ba noppi mu bëgg a permis jotul permis ñu dem foofu ci nga xamante service des mines ñu fekk dañu bëgg effacer li nga xamante ni daal maanaam mooy turam ci permis bi loolu daal nga xamante ni bokkul ak devoir. Sénégal ak démocratie et la liberté doomu Adama nga bëgg ko nangu Cheikh Yirim Seck yéene ci Le bi nañ déglu Cheikh Yérim Seck del soi combat nag bi def ci DDL combat bu concerne Amen pourquoi Je vais di annoncer tout de suite qu'on a décidé de porter plainte contre la police du Sénégal avocat bi mi ngi def diligence yi moment bi wax ni

parce que nous bëgg nañu déstabiliser suñu liggéey parce que bëgg nañu yàq suñu liggéey parce que bëgg nañu xoqatal ñu arrêté Ameth Ndoye Nous biñ ko arrêté jël permis maa ngi dégg ñu jël seen waxkat yi naan leen daf dawal sans permis parce que il faut il faut ñu sénégalais attestation biñ jox biñ yaa ngi dégg numéro permis bi mi ngi fii wala numéro permis bi mi ngi nii ñu bind ci attestation bi ñu ko jox lii mooy bi ko prolonger attestation bi mi ngi nii ko photocopier jox ko judaat ba ngeen xam ni dañ ko jël permis attesté ko permis de conduire numéro 10 82 76 37 mi ngi permis de conduire attesté ko jël permis de conduire am mi ngi a yéen ñëpp biñ jëlee permis de conduire jox ko attestation biñ ko joxee attestation mu dem pour jël permis parce que loolu yëpp leen rek tax ñu def ko lii lañ bëggoon empêcher maanaam toog bi ñu toog ak fii ñu jëm ci Sénégal ñoom mënuñu ko nangu te lii il faut xoolal képp ku ko bañ génnal Sénégal parce que toog bi maanaam gàtt durée bu gàtt durée bu bi gën a tuuti bi mu mën a am toog bii mooy vingt ans il faut nit ñi il faut loolu mooy il faut dugg ci biiru nit ñi parce que cellule bii nga xam ne ni ñu ngi koy xeex te kenn tegagu ko cellule la boo xam ne li ko suude conviction la maanaam li ko li leen ni ñu boole ñun du alal du nguur conviction la ay nit ñu bokk xalaatin bokk gëm-gëm ànd pour bokk fu ñu jëm loolu moo ñu boole donc qu'est-ce qu'ils font ñu le permis à Ndour écoutez bien L'assurance auto parce que là bañ ñu jaxassé seeni xel mom Mon koy arrêté assurance auto bi ok assurance auto bi mi ngi ni carte permis bi ñu jël attestation prolongation attestation bi mo nek ni xam nga li leer nañ ñu jël permis mu dem ñaari yoon ñetti yoon pour jëli permis ñu koy gololoo mu dem ba même attestation bi ay pexé deug lañ def pour jotaat ci attestation bi parce que même dañ jëlé ñu permis ba paré ñom dañu def ay pexé ba nanguwaat attestation bi bi démé di dox ci lolu ñu wax ak seen kilifa bu mag mu woté service des mines ñu ni ko dindi nañ permis Ameth Ndoye ci système bi est-ce que da ngeen li bëgg wax c'est pourquoi on a décidé de porter plainte contre la police du Sénégal pour que permis bi nga xamni bind nañ ci numéro bi ñu attesté ko ñu ko dans les meilleurs délais c'est très important et puis ñu xamni amul manœuvre bu mener 2DL budul yalla fek yalla ngi ñuy may dund ñuy noy ci kaw suuf sénégal dara mënu ñoo té liñ bëgg dox ñu dox ko ñi ngi suivre ñi ngi top ñi ngi jema a nit ñi mais bi moy suñu premier combat il faut ta xam nga ni ñi défé la c'est-à-dire jël permis jambour jël attestation jambour dem jël say waxkat na len ki dafa dawal sans permis daw yooyu yëpp yaa ngi préparer opinion bi pour xëy suba jàpp ko mais loolu c'est moo tax maa ngi wax ni combat bi ñu nekk ci Sénégal na doon combat bu loyal parce que tax combat dafa parce que xeex bu demee ba nekk xeexu mbedd rek dootul amati règlement te xeex bi bu amul réglement man bu ma ci duggee man bu ma duggee ci xeex bu amul réglement àdduna day tukki mm-hmm. billahi lazi ilaha illa huwa man bis buma Ils ci xex bu amul règlement aduna day tukki donc affaire comprendre voilà Légui, la tambalé il faut sénégalais xamni amendoy sans permis Ils dañ ko parce que mi ngi don ñew ci suñu ay réunion ñi ngi préparer li nga kon ñoko ko déggandoo muy première action bi nga xamante ni citoyen 221 di ko lancé mooy porter plainte lii di police nationale bu Sénégal ndaxte nee na dafa concerné kenn ki nga xamante ni dafa bokk ci mouvement bi muy Ahmed ndoy mu yëkkati tous les preuves brandir ko ci arrestation biñ ko arrêté ci contrôle routier ak la police jël permis jox ko attestation dem di jëli ji permis joxuñu ko permis ñu defal ko prolongation lii di attestation ñu dem service des mines def seen ay pexe ñu ne turu Ahmed Ndoye kat dindi nañ ko ci liste permis loolu moo tax ñu jël seen avocat mi ngi diligenté lépp loo xamante ni mooy ay pièces pour que ñu porter plainte li nga xamante ni maanaam mooy police sénégalais donc lii dafa bokk ci benn action boo xamante ni képp kuy sénégalais képp ku bëgg a bafouer sa ak sa yelleef mouvement bi day taxaw daal di lay soutenir défendre la donc je crois que tey dañu war a poser wu question fan la ñu nekk ndax docteur Diallo lu mu wax bërki démb dafay confirmer wala que Pastef xeex na ba jël réew mi cent pour Pastef la li neex Pastef ngay def lu neexul Pastef soko defé ñu tégal sa nangam man lu du ma est-ce que loolu la ñuy confirmer que tey kii nga xamante ni maanaam mooy premier ministre mooy roi bi kii di président mooy prince bi docteur Diallo le praticien bokk ci Pastef moo taxaw wax ko publiquement te ba tey ji dara fekk ko ci te dafa mel ni situation boobu la ñu commencé di dund moo mouvement bi taxaw nee naa mbéjum kanam borom moo koy fajal bopam ndaxte su ñu nekkee ci benn régime dictatorial je crois que sénégalais yi ci boppam ñoo war jël sen responsabilité mettre face pour que loolu arrêté ndaxte ñu nekk en 2024 bi nga xamante dañu war a xool suñu démocratie nak lay gëna yokko ba ku nekk am sañ-sañam ak xam ak yelleefam daal di wax sentiment wax xalaatam wax gis-gisam baña a bokk ak nit gis-gis te dara du ko ci fek tay ji loolu suñu ko bëggé nangul je crois que ñun suñu bop ñoko mëna xéxal suñu bop kon ñoko ko déggandoo muy première action bi nga xamanteni li di say 221 bëgg na ko def manam maanaam mooy lii nga xamante ni maanaam mooy porter plainte police nationale jëmale ko ci injustice bi nga xamante ni Ameth Ndoye mi ngi koy dund.